people lii yëpp nag waa Pastef la rek. d'accord kenn waa Pastef kese la. mais dafa am benn opposition bu jugaat ñu tuddee leen fit waa F24 ñoo ñëw créé waat beneen opposition tuddee ko fit. ñoom di dañuy créé rek créé war nañ fi M2D Yewwi Askan Wi créé FRAPP lu leen nañ ko créé lépp Pastef la rek les gens de ex Pastef rek loo tas rek ñu créé leneen ñoom lu luñ créé ba mu tas ñu créé leneen. dégg naa Lacoste tamit ñu naan <laughs> Lacoste xaw ma débardeur xaw ma grand boubou ñi daal Sénégal. Eh, mouvement bu tudd grand boubou da ko fi gis. ah nag dañ ne Lacoste la man la xaw ma la xaw ma semis xaw ma grand boubou en tout cas ñoom daal ñoo dajaloo nee nañ dañuy apporter Ousmane Sonko soutien vraiment lii ñu doon def yëpp daa amul lu ko jiitu woon mooy Ousmane Sonko bañ ne ko kaay wuy ji yoon ñu ne ko demal wuy ji ba pare ànd ak moom la ci ginnaawam. mais Sonko dafa jàppoon ne mu ngi si dëgg. daa jàppoon ne mu ngi ci dëgg. waaw te kee joxuñu ko dëgg. te te te te est que jàppul loolu ba léegi sax. duñ ko wax dëgg parce que xam na am na ñu ko topp ñu fanatique ñoo xam ne boo nee Ousmane Diène a kii rek ñu nuqi jox la wala ñu wéef la gis naa benn sëriñ bu leen encaissé un million cinq cent ne leen Ousmane Sonko du dugg kaso tey ma nga ne ca kaso ba te sëriñ bi xam naa ko xam naa ko bu baax un million cinq cent la encaissé waa Pastef. ñu dajaleel ko ko wéef ko ko barke Serigne Bamba Ousmane Sonko nga kaso ba Serigne baa ngi tëdd këram di noos alali borom barke lañ de dañ leen di jariñoo mais duñ jariñ seen bopp mukk parce que duñ jariñ seen bopp mukk ci àdduna dañ leen di jariñoo rek